هل أنشد الشعراء من مترنم أم أبدع الفصحاء من متكلم في كنز علم جاءنا من طيبة دار الرسول عليه صل وسلم بشهادة هي للحديث مطية وسماؤها يرفع إليه macha allah xam-xam te expérience bi moo tax ma di leen wax toujours di leen jege waajur yi di leen ndax fañ jaar yëpp lu ca métti danañ ko teggi te lii borom ñoom ñii jaar ci njàng eh, yàlla bu ngeen ko xam sax waru leen koo xam sax nag. <laughs> ki ci topp mooy Mouhamed Ahmed ibnu Khalil Loh wala ibnu Ibrahima al moom la ñuy sargal tey jii muy docteur Mouhamed Ahmed anamu. ma nga nele moom itam ki ko tuddee xaritam wala rem ko xam ne ñoo ànd seen dund gépp man ba ma xamee ba ma xàmmee rek laa leen gis ñoom ñaar ñuy ànd ku leen xam ñoom ñaar xam ne ñoom ñaar seenub ànd yàgg na muy Cheikh Ibrahima Khalil ak docteur Mouhamed moo ko tuddee kii mu nekk euh, turandoom su ko defee turandoo yi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw Ahmad mi gis ne ni ñu defal Ahmad kat suñ turandoo lii dong la bëgg ci noonu amul leneen lu bëgg ci yéen mooy ngeen jàng diine ji ni ngeen ko war a jànge su ngeen ko jàngee ba noppi ngeen jotli ko sëñ Ahmad dañuy waxtaan bis mu ne ma sama bàyyi de mas na maa wax ne ma yàlla waxut xad aflaxa man taallama xad aflaxa man tazakka la wax ab la ci sàkku xam-xam waaye soñña la itam ci képp koo xam ne yàlla baaxe na la dara ci xam-xam nga góorlu téye ko góor góorlu ci di ko yokk waaye góorgóorlu ci di ko jëfe te di ko tasaare lool yi mooy li nga xam ne fa la ci la nit di yëkkati ko fi nun ci la nit di suufee itam ci nun ndox nun ci suñ bopp kat ci loolu la ñuy yëkkatikoo ci la ñuy suufee itam yëg-yëg boobu lan yor ci kaw kon mbokk yi ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala cant gam yellool ci xéewal yi nga xam ne moom la defal muy xéewal yi feeñ ak yu nëbb wal aali wa sahbi al usuudi ma qumtu fiikum bil qasidati qailan hal anshada shuaraa min mutarannimi asalaamaaleykum wa maa ngi nuyu mbokk yi fi teew si yépp di leen dalal ci dëkk bi di Daaru Lo nekk ci Ngaabu di leen massaw coono tukki yi di sant suñu boroom tabaraka wa bu baax alhamdulilahi rabbil alamin ci lii nga xam ne moo nu fi tax a daje tey te docteur Mohamed Ahmed sababal nu jotaay bi muy jotaay boo xam ne mi ngi jëm rekk ba tey ci liggéey bi nga xam ne ci la ñu nekk nun ñépp te mooy di sàkku xam-xam di ko xamle di woote ci lislaam lii nag ab soññe la ci sàkku xam-xam waaye soññe la itam ci képp koo xam ne yàlla baaxee na la dara ci xam-xam nga góorgóorlu téye ko góor góorgóorlu ci di ko yokk waaye góorgóorlu ci di ko jëfe te di ko tasaare kon ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax leen wax ne seen barab ngeen ñëw li leen tax a jóg itam mooy li nga xam ne moo fi bàyyi ñu ngeen fekk si di sant xéewalu suñu borom tabaaraka wa taala bu baax ci ndénkaan li muy dénke ndax doom ndénkaan la eh, dëgg la neexama la xéewal la waaye tam nag aw sas la borom bi moo ne yaa ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla na ngeen jëf lu leen fegal safara lu leen ci musal waaye seen njaboot yi ngeen teg leen ci yoon wu leen di musal bu ëllëgee kon nag lu ca suñu borom tabaaraka wa taala baaxe ab jaam looloo da koy delloo ci sant borom bi tabaraka wa taala lépp lu am ci xéewal rek ci moom la bàyyi ko waba fama wama bikum min ni'matin fa min allah lépp lu ngeen am ci xéewal ci borom bi tabaraka wa taala la bàyyi ko te sant ga mooy tax mu saxal ko mooy tax mu dolli ko kon nag alhamdulilah ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant docteur Ahmed itam ci lii mu def euh, muy lu rëy loo xam ne ab soññ la ci kiñ koy defal waaye ab soññ la itam ci mbooleem ay moroomam yoo xam ne ñu ngi sàkku xam-xam moo xam ñoo ko jiitu walla mu jiitu leen waaye lii ab soññ la ci ñoom ndax koo xam ne ndaw nga euh, amagoo ak jote ñu baree baree bari euh, xëy na bu ñu la déggeet yow xamagoo leen boo leen tax a jóg ñoo xam ne ñëpp say way jur lañ ñu woote ngir ñu jóg ngir ndokkeel la ngir sargal la ah, loolu war naa nekk ab soññ bu baax a baax a baax a baax ci ki nga xam ne moom mooy sabab bi kon docteur loolu rek la ci jublu kenn jubluwu ci wanewu wala dara ndax looy bàkkoo wala looy wanewu day fekk na loo def la waaye lii moom def def suñu borom tabaraka wa taala rek la mooy jagleel ku ko soob lu ko soob te itam nag sax aw sas la nag ndax euh, xam-xam lu ñu la ca dénk rek dañ la dénk nga jëfe ko nga jottali ko nga tasaare ko kon ku toll ci foofu ñu lay wax ne am na dara loo am ci xam-xam dañ leen ndokkeel waaye dañ la war a ñaanal itam ñaana la bu baax a baax a baax yàlla defal la tawfiq kon nag ñu ngi leen di dalal bu baax a baax ci barab bi di wax ne seen barab ngeen ñëw seeni bokk ngeen fi fekk yàlla na borom bi tabaraka wa taala nangul nu jotaay bi lim ne yarfa illahu allasina amanu minkum wallasina utul ilma darajaat yàlla day yëkkati ñi gëm yàlla ak ñi nga xam ne jox na leen xam-xam da leen di yëkkatil ay daraja daraja yooyu mu yëkkati yàlla na nu ko boole nun ñëpp dugal nu ci biir daraja yooyu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf Cheikh Ibrahim Khalil euh, al kalimatu xallat wa dallat. gone yi nañuy déglu waaye jur yi ko mat te di leen déggal waaw ah, nañ leen di déglu te di leen déggal yaakaar naa ne ku ko ci def doo ko rëccu ndax misaal maa ngi nii kon Cheikh Ibrahima yooyu itam wax dëgg yàlla dañ lay jaajëfal. dañ lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax euh, kon dañuy continuer rek euh, jox docteur Ilimane Ndiaye moom moo jiite mu assas daarul istiqaama bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain euh, mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu tedd bi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di sargal bu baax a baax ñi taaral jataay bi ci muy képp koo xam ne rek bàyyi nga sa yitte ñëw wuy si wooteeb sunu cheikh cheikh na al ustaaz docteur Mouhamed Ahmed Lo xafizahu llahu tabaraka wa taala ak itam ki nga xam ne moo nekk ci wetam di cheikhuna cheikh Ibrahim Khalil Lo ak cheikh Aline Badara Mbaye mu nekk woote boo xam ne bu sedd xa xol la ci li yàlla subhanahu wa taala defal ci mbaax ak teraanga ak xam-xam defal ko ki nga xam ne mooy euh, euh, docteur Mouhamed Ahmed Ibrahim Khalil Loox yàlla ko yàlla sàmm ca barkeel ko euh, jataay bi wax dëgg yàlla comme ni ko sama cheikh waxe cheikh Abdoussalaam Loox di chef de village wu Ngaabu bokk ci ñi ma jàngal ci al marhala muy cycle élémentaire nekk sama sëriñ sama cheikh ak mboolem ñi fi nekk ñëpp wax dëgg yàlla kenn ku nekk am na duñ jaar lu liggéey bu rëy boo xam ne def nañ ko ci gox bi ma bokk rek ca ña nga xam ne jaar nañ ci seen i loxo euh, mu nekk jataay boo xam ne comme ni ñu ko waxee jataay soññee la ci ñi nga xam ne ay sàkkati xam-xam lañ ay ndaw lañ comme ni ko Cheikh Ibrahima waxee kenn ku nekk war na cee jànge lu bëree bëri ci jataay bi ci lu ci sóobu ci yoon wi xam ne ku ci sóobu doo ko rëccu moo tax ñu ngi ndokkeel bu baax a baax suñ rakk ji nga xam ne moom la ñu ndokkeel tey di ndokkeel tam mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ànd moom liggéey bi ak eh, li yoon wi nga xam ne ci lañ jàll eh, man nag sama kàddu mi ngi jëm ci loo xam ne Cheikhna docteur Mouhamed Ahmed Lo ci ak yëgam ak eh, yittewoo gum yittewoo ay soppeem dafa recensé mboolem koo xam ne mës na koo tuddee tur maanaam tur ay turandoom ñëpp ku ko téléphone ne ko tudd naa la doom rek bind na dat ba bind waajuram bind kañ lañ ko ko tudde ak kooka fa la dëkk ah allahuma lu dul ñi nga xam ne léeg-léeg ñu tudde ko ca duñ ko ko wax ndax loolu day am wala boog koo xam ne xañ daf koo faat daf ko wax nañ ko ko mais mu mu faat ko wala mu euh, saxu am ci ndax loolu moom moog doomu aadama aadama waaye daal ñi ci ëpp wala sax mën nañ ne ña cay faat ñu néew lay doon bind na leen ñu mat juróom benn fukki turandoo soixante turandoo yoo xam ne Cheikhna Mouhamed Ahmed Lo am na ko yàlla ko yàlla leen yàlla barkeel ñoom ñëpp yàlla bu limbee tam yem foofu yàlla tam barkeel seen turandoo ca nuru seen turandoo ci xam-xam ak yar ak jëf ak jàngale mu nekk loo xam ne lu rëy la ñun tam war na ñëpp war nañ cee jàngee wax dëgg yàlla ndax gii yëg ak gii yittewoo doomu aadama ak gii mbëggeel wax dëgg yàlla jox na exemple yu bari moo tax woote bi def na mi ngi ko defal kenn ci ay turandoom parce que docteur Mouhamed Ahmed Mouhamed Ahmed Khalil mii nga xam ne moom la ñuy teral teral tey turandoom la mu ne moom la koy defal ak képp koo xam ne turandoom laa tam nee na ñoom ñëpp invité na leen ci bis bi moo tax ñu am na ñu bëri ñoo xam ne teew nañ sax ci turandoo yooyu waaye xañ na déplacement bi ak waxtu yu nekk moo tax ñëpp duñ mën a ñëw waaye woote bi docteur Mouhamed Ahmed Khalil moo ci jiitu ak képp koo xam ne rek Eh, turandoo cheikh na docteur Mouhamed Ahmed Lo la léegi nag ñu daal di tudd lenn rek ci ñooñu incha allah ci ci gaawal ndax waxtu wi nekkul loo xam ne eh, lu bari la kim ci njëkk a tudd mooy Mouhamed Ahmed Ibnu Hassan Lo kooku magam ju mbokkal benn baay moo ko njëkk a doom mun kooku moomu mag fuuf xam naa ko bu baax a baax rakam a nga nee Qadir moom mag euh, xam naa ko bu baax kon looloo tam boo demee ba samag mag tudde la doom am na lu muy tekki ki ci topp mooy Mouhamed Ahmed ibnu Khalil Loh wala ibnu Ibrahim al Khalil Loh moom la ñuy sargal tey jii muy docteur Mouhamed Ahmed anamu ma nga ne la moom itam ki ko tuddee xaritam walla rem koo xam ne ñoo ànd seen dund gépp man ba ma xamee ba ma xàmmee rek laa leen gis ñoom ñaar ñuy ànd. ku leen xam ñoom ñaar xam leen ñoom ñaar euh, seen ànd yàgg na muy Cheikh Ibrahima Khalil ak docteur Mohamed moo ko tuddee kii mu nekk euh, turandoom tey jii mu am doctorat macha allah bañ koy sargal ci bis bi yàlla ko yàlla sàmm ca euh, shahada bi itam yàlla ko jig yàlla na jëriñ yàlla na ko jëriñ jëriñ ca itam mboolem mbokki ki ci topp mooy Mouhamed Ahmed ibnu Cheikh Lo Touba la dëkk mooy magu euh, Abdul Qadir euh, Cheikh ah Cheikh Muxtaar ma ngoog <laughs> Cheikh moom itam euh, doom la ci moom ndax doomi magam la waaw kii rakkam la sëñ Abdul Qadir loo mi toog nii rakki sëñ Cheikh mii la sëñ Cheikh mi xam naa ko baax a baax suñ magum daar la nekk ku baax mu ngi dëkk fii ci Touba. ki ci topp mooy Mouhamed Ahmed Ibnu Abdul Karim Guèye mi ngi dëkk Dakar Abdul Karim Guèye xam naa ko baax a baax defe naa ñu mbokk yu bëri xam nañ ko mi ngi liggéey fee ci meeru Pikine nekk mbokk mu baax te bëgg cheikh bi te yàgga top ay jàngaleem ak tënku ci li nga xam ne mooy ay njàngaleem ñaan na ko yàlla sàmm kii ci topp mooy Mouhamed Ahmed Ibn Moustapha Ba tam tudde na docteur Mouhamed doom kii ci topp mooy Mouhamed Ahmed Ibn Hadi ture ana sëñ Hadi Touré waaw sëñ Hadi mi ngi fi Mouhamed Ahmed moom itam defe naa mi ngi fi waaw moom itam eh, macha allah moo ko ne ba ma nga ne ca kulliye ba di def sana saaniya déwén lay def euh, euh, licence incha allah ki ci topp Mouhamed Ahmed Ibn Ousmane Sow géewal wala géewal waaw ah, géewal ca wetu Louga géewul ma ngoog waaw mu ngoog mu ngoog ki ci topp Mouhamed Ahmed Ibn Tahir Diop Tahir Diop sun euh, xarit la sun rakk la doomi Oustaz Demba Diop dëkk fële ca parcelle mbokk yu bari xam nañ ko ki ci topp mooy Mouhamed Ahmed Ibn Abi Bakar Bari Casamance ah mooy raqam samaniya bi raqam samaniya raqam tisa muy neuvième bi Mouhamed Ahmed Ibn Ahmed Dieye Rufisque Ahmed Dieye Rufisque am na ci ñoo xam ne nag man du ma leen xam mais mbokk yi du ñàkk su ma ko tuddee am na kenn ku nekk rek du ñàkk nga am koo ci xam. Euh, dixième bi ah, raqam achara mooy Mouhamed Ahmed Ibn Omar Diallo Cheikh Omar Diallo sama xarit sama àndandoo sama wéttili kaay mooy aminul am li ma sa daal istiqaama def naa teew na léegi seen naa ko ma ngi ne la ca euh, mbooloo ma macha allah euh, aljundiyul majhul yàlla na ko yàlla sàmm moom itam tudde na cheikhana am na ci moom aw turandoo ki ci topp raqam ahad achar Mouhamed Ahmed ibn Moustapha Niang Moustapha Niang goro la ci Cheikhna isna achar Mouhamed Ahmed ibn Cheikh Mbay Fay ah ah at ah Moustapha Niang at taajir ah kay ah beneen la at taajir Dakar kon euh, keneen la gis nga yooyu ràññat la sax cheikh bi ma allah yooyu yëpp bàyyi na ci xel yal na ko yàlla sàmm Mouhamed Ahmed ibni Cheikh Mbay Fay Cheikh Mbay Fay ndax ñëw na xam naa bu ñëwul tam moom ci gox bi la dëkk doom jaa ngi nii rakk la ci Cheikh naa Fay ku ko xamul rakku Cheikh naa Fay la macha allah euh, kii ci raqam salaasta achar muy treizième bi Mouhamed Ahmed ibnu amar Ndiaye Jonwaar Omar Ndiaye Jonwaar Euh, quatorzième bi di raqam arbaata achar Mouhamed Ahmed Ibn Moustapha Niang waaw kii mooy goro cheikh na moom mu ngi nekk Kuwait di fa jàng yore euh, doomu cheikh na docteur Mouhamed Ahmed Lo xamasa achar muy numéro quinzième bi Mouhamed Ahmed Ibn Ibrahima Sarr Dakar Ibrahima Sarr doom la ci euh, sëñ Mor sar Baye Mor Sarr rahimahullah nekk sëriñ daara nekk rakki sëñ Mor Sarr mi nga xam ne te moo jiite daara jooju Euh, sitta achar muy numéro seizième bi Mouhamed Ahmed ibnu Baba Dia Touba sabata achar ah mooy Papa Dia macha allah Papa Dia moom euh, macha allah ku taqoo cheikh bi la moo mi ngi bokk ci ñu yore euh, fii ñu nekk nii muy tool bi ci ñu koy saytu ci la bokk sabata achar Mouhamed Ahmed ibnu Mbacke Ñang Thiès Mbacke Ñang ku ko xamul mooy secrétaire u cheikh na docteur Mouhamed ca kulliya ba mooy itam muhaasib bi trésorier bi ah ñëw na waaw mi ngi fi kon mi ngi ci mi ngi ci mbooloo mi macha allah ma nga nële ma nga nële ci mbooloo mi moom itam tudde na cheikh na docteur Mouhamed Ahmed doom muy Mouhamed Ahmed ibnu Mbacké Ñang samante achara muy numéro 18e bi Mouhamed Ahmed ibnu Cheikh Omar Diop Kaolack Omar Diop Kaolax mbokk mu baax def na fa jumaa ju mag moom mooy waaj a ubbi noonu eh, eh, benn eh, rajo bu tuddee Izaatul Quran oto rajo Quranul Karim foofu ci Kaolack nekk koo xam ne soppi cheikh bi la lool yàlla na ko yàlla sàmm. raqam tisaata achar muy 19e bi Mouhamed Ahmed Ibnu Isa Kebe France la nekk Isa Kebe raqam 20 muy 20e bi Mouhamed Ahmed Ibnu Fadil Jenn jonno jonno jéggul ma nga ne Mouhamed Fadil Dione mi ngi dëkk Bambey mbokk mu baax la moom itam doom jàng ne macha allah Mouhamed Ahmed yàlla na ko yàlla sàmm ca sàmm mboolem turandoo yi. waaxid wa ishrin muy vingt et unième bi Mouhamed Ahmed ibnu Saam Lo Jurbel Saam Lo Cheikh Abdou Karim xam na ko. isna isnayn wa ishruun muy vingt vingt deuxième bi Mouhamed Ahmed ibnu Ali Mbuub Jurbel ba tey. mbopp mu nga salaasa wa ishrin muy vingt troisième bi Mouhamed Ahmed Ibn Jili Lo sëñ Jili Lo mi ngi dëkk fii ci Ngaabu euh, waaw kii maanaam rakku kii di caméra la bokk waaw papaam mooy ki nga xam ne moo jur Mouhamed Ahmed Lo boobu yàlla ko yàlla sàmm arba wa ishrin muy vingt quatrième bi Mouhamed Ahmed Ibn Jibril Ba Gubantum Kupantum Kupantum Koumpentoum la dëkk xam naa kooku du ñàkk Cheikh Moukhtar xam ko ndax mos naa jaar Koumpentoum euh, xamsa wa ishruun muy vingt-cinquième bi Mouhamad Ahmed ibnu Massar Loum Dakar al oustaz Massar Loum defe naa ñu bëri xam nañ ko sëriñ daara la mu ngi nekk fële ci Tiwaawan Pël moom itam tuddee na cheikh bi doom muy Mouhamad Ahmed ibnu Massar Loum sitta wa muy vingt-sixième bi Mouhamad Ahmed ibnu Ahmed Sougou ca Waadaan Mouhamad Ahmed ibnu Ahmed Sougou Ahmed Sougou jarbaatu cheikh bi la jarbaati lenqeem la moom itam tudde na cheikh bi doom muy Mouhamad Ahmed. saba ishrin muy vingt septième bi Mouhamad Ahmed ibnu Mahmoud Kan Mahmoud Kan defe naa kuy jullee ci jumaay Abdullah Mubarak da nga ko xam mu ngi jaay foofu ci bunt ba bis àjjuma dëkk fële ca gàddaay Mahmoud Kan moom tam tudde na cheikh bi turando am na am na turando euh, cheikh bi am na ci moom turando. 28e bi muy samaan wa ishrin Mouhamed Ahmed ibnu Mouhamed Gomis Dakar fële ca Kër Massar Mouhamed Gomis Gomis mbokk mu baax moo xam ne ñu bëri xam nañ ko mu ngi dëkk fële ca Kër Massar yàlla ko yàlla sàmm moom tam tudde na cheikh bi doom tisa wa ishrin muy 29e bi Mouhamed Ahmed ibnu Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye Fonds sénégalais pour la Zaka tudde na cheikh na docteur Mouhamed Ahmed Lo doom waaw ngénte loolu maa ngi koy fàttaliku teewoon naa ci maag cheikh bi ñoo àndoon defe naa salaasi eh, salaasiwun muy numéro 30 bi Mouhamed Ahmed Ibn Cheikh Mbay Colom Fall Colom Fall Colom Fall xam naa ca wetu Kajoor lay war a nekk waaxid wa salaasin muy numéro 31 Mouhamed Ahmed Ibn Faali Touré Faali Touré itam defe naa kuy jullee ca jàkkee Abdullah ibn Mubarak da nga ko xam mu ngi bokk ci ñuy jaay foofu ci buntu ba bisu àjjuma moom itam tudde na Cheikhna Mouhamed Ahmed doom salaasa wa ishrin muy numéro 32 Mouhamed Ahmed Ibn Malik Sow Kunun salaasa wa salaasin numéro 33 Mouhamed Ahmed Ibn docteur Mouhamed Diop Kaolack Mouhamed Diop docteur Mouhamed Diop Kaolack arba wa salaasin Mouhamed Ahmed Ibn Jawhar Ndiaye doomi Oustaz Jawhar Ndiaye def naa mooy bi dëkkoon côté Géejawaay ah beneen la ah beneen la xamsa wa salaasun 35 Mouhamed Ahmed ibnu Maysa Fall Maysa Fall ñi dëkk Kër Massar wala ñu dëkkoon kar ba day Parcelles Assainies xam nañ ko bu baax moom itam tudde na cheikh na docteur Mouhamed doom sab euh, sitta wa salaasin muy numéro 36 Mouhamed Ahmed ibnu Mouhamed Mbuub Ceneba Mouhamed Mbuub Ceneba moom mooy kan Abu Salima sa doom baay la ma ngoog Euh, saba wa salasin muy numéro 37 Mouhamed Ahmed ibnu Mouhamed Ndaw Ndar samani wa salasun numéro 38 Mouhamed ah ñëw na moo nekk noonu ah papa moo nekk noonu macha allah tabarakallah waa Ndar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax jazakumullah xayran euh, samani wa salasun numéro 38 Mouhamed Ahmed ibnu Lamine Tarawore tisa wa salaasuun numéro 39 Mouhamad Ahmed ibnu As Mbay rahimahullah As Mbay euh, rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm Mbay waaw tam mbokk yi la woon car 40 raqam 40 muy numéro 40 Mouhamad Ahmed ibnu Omar Lo Dakar Omar Lo tam bu fekkee bi ma ko teg mooy jullee kulliya waaw ca am euh, nekk handicap noonu yàlla ko yàlla sàmm moom tam ci soppee sëñ bi la docteur Mouhamed ci la bokk tuddee na ko doom numéro 41 raqam waaxid wa arbaun Mouhamed Ahmed ibnu Ahmed Sarr Gambi ana mbokki Gambi yi ah mu ngoog Ahmed Sarr tuddee na docteur Mouhamed Ahmed Loox doom 42 di raqam ar euh, isnain wa arbaun Mouhamed Ahmed ibnu Omar Bari Angleterre moom tam tuddee na Cheikhna Mouhamed doom salaasa wa arbaun numéro 43 Mouhamed Ahmed ibnu Balla Diagne al mimaari maanaam kooku architecte la mu ngi dëkk Dakar moom tam tudde na Cheikh naan docteur Mouhamed doom arbaa wa arbaun mooy numéro 44 Mouhamed Ahmed ibnu Abi Bakar Senghor Aboubacar Senghor moom tam tudde na Cheikh naan docteur Mouhamed doom xamsa wa arbaun Mouhamed Ahmed ibnu Youssouf Souane Gambi Ah, taalib la ci alkulliya al afriqiya li dirasat al islamiyya moom mi ngi jàng foofu ci kafi ci kulliya bi moom tam tuddee na cheikh na doom sitta wa arbaun numéro 46 Mouhamed Ahmed ibnu Mamour Sarr wala Mamour Sarr Gambi ba tey moom itam macha allah mbokki Gambi itam bëri na soppay sëñ bi ci bëri nañu ko tëdd doom yàlla na leen yàlla sàmm raqam saba wa arbaun numéro 47 Mouhamed Ahmed ibnu Mouhamed Maam Góor Ndiaye Dakar moom tam mi ngi jàng ci collier bi mooy doomu Oustaz Maam Góor Ndiaye mi ñëpp xam fële ci ñàkkurab raqam samaani wa arbaun Mouhamed Ahmed ibnu Cheikh Ndour numéro 48 euh, mooy Mouhamed Ahmed ibnu Cheikh Ndour tisaa wa arbaun muy numéro 49 Mouhamed Ahmed ibnu Saalih Ndiaye Touba moom tam tudd na Cheikh naa doom raqam xamsuun muy numéro 50 Mouhamed Ahmed ibnu Hamzatullah euh, Hamzatullah doom la ci cheikh bi cheikh naa docteur Mouhamed moom itam tudde na waajuram bu góor doom muy Mouhamed Ahmed ibnu Hamza ibnu Mouhamed Ahmed Lo yàlla ko yàlla sàmm ca may ko xam-xam waaxid wa xamsuun numéro 51 Mouhamed Ahmed ibnu Ibrahima Cissé Paris isnain wa xamsiin numéro 52 Mouhamed Ahmed ibnu Hussein Faye Mbour salaasa wa xamsuun 53 Mouhamed Ahmed ibnu Ahmed Mar Amérique Ahmed Mar defe naa mooy ki dëkk euh, côté Somone ma ngoog moom tam mbokk mun xam la ku xéer la ci sunna moom tam tudde na Cheikhna Mouhamed doom arbaa wa xamsuun muy numéro 54 Mouhamed Ahmed ibnu Ali Ka Gambi ba tey anamu macha allah tabarakallah tabarakallah mu ne keroog ca xew-xewu grand théâtre ca la am doom mu tudd ko cheikh na docteur Mouhamed Ahmad Lo allahu akbar macha allah tabarakallah eh, xamsa wa xamsuun Mouhamed Ahmad ibn Abdullahi Dieng numéro 55 Mouhamed Ahmad mi nga xam ne sun xarit Abdullahi Baba Dieng ba dëkk Louga moo ko tuddee ba tey doom mooy ki jiite eh, Leeral FM def naa ñu bëri ñu ngi koy xam ay activité macha allah ستة وخمسون نمرو 56 محمد أحمد ابن سليمان سو 57 muy numéro 57 Mouhamed Ahmed ibnu Salih ibnu Mouhamed Salih Diallo Jambi mbokk moomu Salih eh, Diallo ñëpp a ko xam ci mbokk yi nekk Sénégal ñëpp a ko xam wax dëgg yàlla nekk soppey Cheikh na Mouhamed nekk soppey itam Cheikh Ibrahim Khalil lu bëri ci ay doomam fii leen mokkale alquranul karim ma ngoog nekk suñ soppe ma ngoog mu ne doomam yëpp fii leen jaar fii leen mokkale alquranul karim macha allah yàlla na ko yàlla sàmm nekk mbokk mu baax nag yal na leen yàlla sàmm ñoom ñëpp samaani wa xamsun muy numéro 58 Mouhamed Ahmed ibnu Ibrahima Ba Thiès ibnu Ibrahima Ba Thiès tisa wa xamsun muy numéro 59 Mouhamed Ahmed ibnu Cheikh naa Dieng sa rakk la moo nga rakku sama xarit bi Baye Dame Dieng moom la moom itam tudd na Cheikh naa docteur Mouhamed Ahmed Lo doom yal na ko yàlla sàmm ca may ko xam-xam numéro 60 bi xam naa mooy ki nga xam ne moo ci mujj muy Mouhamed Ahmed ibnu Mouhamed Diin Dieng jenn jenn jenn waaw moo moom moo dëkk Caajaay ah Dieng waaw mu ngoog yàlla ko yàlla sàmm yàlla sàmm doom ji te may ko xam-xam ñoom ñëpp ñu nekk ñu nuru seen turandoo ci xam bu bari macha allah ak jëfe ak eh, tasaare ko ak sax ci li nga xam ne mooy téere bi yàlla bi ak sunu sént bi alayhi salaatu wasalaam te ne ko salaf salih dégge di ko jàngale ak di ko tas ak di ko tasaare yal na yàlla sàmm ñëpp yal yàlla barke lépp waaye man daal li may tëjee mooy ne lii ab bind la rawatina ñi nga xam ne yàlla may na leen wërsëgu ay turandoo def nii cheikh bi def yore seen big di bind loolu moom lu am solo la lu rafet la te tam wax dëgg yàlla ak yëg la goo xam ne defe naa ne yëg mënu ko féete kaw ah, ñi nga xam ne amagun turandoo tam yàlla leen yàlla yombalal loolu <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sukkuran lakk docteur Iliman jërëjëf kàddu yi am na solo leer na euh, turandoo yi it niñ koy waxee yal na leen yàlla barkeelal te ñu seen seen turandoo waaw te ñu yàlla def ci ñoom xam-xam def ci ñoom jub def ci ñoom diine yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waaye turandoo nag du ñëpp koy am. gaa yi yi duñ asaaloo seen doom yi de waaw kuñ tudd turandoo moom koo gis mu bari la ko euh, rek mat naa waaw fam jaar ba am ko macha allah euh, ndax ñi li may wax xale yi docteur Ahmad Ibrahim Khalilou mooy jël kàddu gi léegi waaye li ma leen di wax mooy yàlla da leen a dimbale defal leen tawféex boo xam ne da leen a wutal waajur yoo xam ne. foo mat a jaar jaar nañ fa luy expérience am nañ ko la ca metti lépp ñu teggil ko seenu njaboot ndax wax dëgg yàlla jàng ba am xam-xam teel koo am am doctorat te xamoo fu ñànk fare <laughs> waaw mosu mosu mosu mosu mosu mosu wutub weloo di ko luyee ngir am loo jënde ay téere <laughs> jaaro Côte d'Ivoire di mu xaamara dem Bénin dem Égypte lu nekk daj ko ci kii ngir loolu ku la ko teggil xéewal sens boobu nag yéen moo ngeen am da ngeen am sens am jur yoo xam ne macha allah xam-xam bi expérience bi moo tax ma di leen wax toujours di leen jege waajur yi tey di leen déglu ndax fañ jaar yëpp lu ca métti danañ leen ko teggi te lii farof la ñoom ñii fi jaar ci njàng Eh, yàlla bu ngeen yàlla bu ngeen ko bu ngeen ko xam sax waru leen koo xam sax nag <laughs> kon docteur Ahmad man ngaa jege si moom nag moo waral jataay bi eh, ndaw la nañ ko ñaanal ndax li nekk ci kanamam moo ëpp li nekk ci gannaawam lépp yàlla na ko yàlla leeral comme ni mu leerale li nekk ci eh, gannaawam yàlla mën na ko yàlla na yàlla defal kon tafaddal mashkuran bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baad ginnaaw loolu mbokk yi ñi ngi sant suñ boroom subhanahu wa taala cant gam yellool ci xéewal yi nga xam ne moom la ñu defal muy xéewal yi feeñ ak yu nëbbu mu bokk ci xéewal yooyu bokk yi ci gën a mag muy xéewalu suñ boroom sóob la ci yoonu sàkku xam-xam waaye it mu bokk ci xéewal yooyu mu boole laak ñoo xam ne dañ lay teg ci yoon dañ lay teg ci yoon ci étape boo mën a tollu ñu awale la yoon wi nga xam ne moom lañ jàpp ne mooy yoon wa gën mooy yoon wa gën loolu ku ko am da sant suñ borom subhanahu wa taala bu baax a baax ci lool kon ginnaaw buñ santee suñ borom subhanahu wa taala mi nga xam ne xéewal yépp ci moom lay jóge wa ma bikum min ni'matin fa min allah dañ ci toftal nag sant suñuy waay jur muy Cheikh Ibrahim Khalil loo ak ak docteur Mouhamed Ahmed loo mi nga xam ne maam la ci ñun ci taxawu bi ci anam yépp ak ci étape bu ñu mën a toll rawatina ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu xam-xam ci ginde ak i tegtal ak i laaye biir ak lépp loo xam ne rek am nañ ko ak lépp loo xam ne xam nañ ko ci ne ku tegu ci yoon wi di nga am lii loola gàttañ luwuñ ci benn yoon ci teg ñu ci yoon woowu kon loolu ñu ngi leen ciy delloo njukkal waaye tamit di leen ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu defal leen ci tawfiq di leen ñaanal suñ boroom mu sàmm leen sàmm seen njaboot ba liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu lislaam nga xam ne ci lan ne suñ borom subhanahu wa taala saxal leen ci ba keroog ñuy wuyu ji seen boroom ak ñun ñëpp suñ boroom saxal ñu ci ba keroog ñu fiy jóge ginnaaw loolu euh, ñi ngi sant it képp koo xam ne teew na ci jotaay bi wuyu si woote bi ca li tax mu wuyu si ko du ay jëmm moo tax waaye li tax ñu woote ko rekk mooy xam-xam xam moo tax suñ boroom dafa wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu waxal yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci ngëneelug yàlla ak yërmaaneem ci loolu lañ war a bég ibnul qayim yàlla ak yërmaaneem mooy islaam ak sunna te islaam ak sunna mënee su xam ci lu dul da jaar ci yoonu xam-xam kon xam-xam bi nga xam ne moo yóbbee wala moo lay yóbbu ci loolu moo lay yóbbu ci nga xam islaam ak sunna xam-xam boobu it jar na ñu bég ci loolu moo waral teewaayu képp ku fi teew ak yaakaar guñ yaakaar ne nit bu amee xam-xam wala boog bu amee lenn ci xam-xam diine mën na cee défendre l'islam mën na cee yëkkati lislaam kon yëkkatigu lislaam ak lislaam jëm kanam lislaam kawe moo tax ñëpp dagg seen yitte dal di teew kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm di sant it samay àndandoo samay zumala yi nga xam ne ñoo doon jàngandoo ñoo nekkoon ci yoon wi ñu nekk ba léegi it ñu nekk ci ca loolu rek a tax ñu ànd muy xam-xam xam-xamu diine ñooñu it ñu leen di gërëm di leen sant ndax kuy jàng dafa soxla ay àndandoo yoo xam ne day bokk ak ñoom yoon wi di leen wettalikoo di leen wettalikoo ndax xam-xamu sharia dafa nekk lu tumuraanke bu amut ñoo xam ne ñoo lay wettali ci yoon woowu ngeen ciy waxtaan di ànd ak ñoom loola mën ngaa mujju bàyyi wala mën ngaa mujj tayal ci yoon woow waaye boo amee ñu la ciy encouragé nekk say moroom loola euh, day nekk loo xam ne day gën a tax nga góorgóorlu ci yoon woowu kon ñooyit it ñi ci teew ak ñi ci teewut ñëpp ñu ngi leen di euh, ñu ngi leen di sant kon ci gàttal daal jotaay bi ak soññee la ak soññee la ci ñun soññee la ci ñun wax ñu di wax ne war ngaa gën a góorgóorlu kon war ngaa gën a yokk lii ab tàmbalema rek la waaye demagoo fenn war ngaa gën a yokk nag gën a sax gën a continuer ci yoon wi ci yoon wii nga xam ne mooy yoonu xam-xam nga xam ne say waayjur ak say maam ci leen jaaroon ci leen nekk ci leen leen xame kon yow it war nga cee gën góor góorgóorlu war nga cee gën a sax war nga cee gën a continuer waroo it te woo leneen lii mooy sa wàll kon dafa mel ne jotaay bi loolu rek moo ko wund kon loolu ak soññee la ci ñun Euh, ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu dimbali ñu ci mu defal ñu ci tawfiq ba ñu mën a mottali lépp loo xam ne way jur yi yéene woon nañ ko lépp loo xam ne mébétoon nañ ko ci seenu njaboot ci àggale lislaam ci taxaw diine ji ak ci liggéeyal euh, euh, lislaam lépp loo xam ne naal nañ ko wala tàmbale nañ ko ñu mën koo mottali man cee wéy ñi nga xam ne it ñooy suñu njaboot ëllëg mën a wéy ci yoon woowu fi may mujjee rek mooy di ñaax sama bopp di ñaaxaat sama àndandoo ak sama rakk yi ñu góor góorlu gën a góor góorgóorlu takkuwaat teguwaat ci yoon wii nga xam ne mooy yoonu xam-xam mooy yoonu xam-xam ndax diine moom xam-xam moo ko lal faalam annahu laa ilaha illa allah imaamul buxaari wax ne al ilmu qabla al qawli wal amal xam jiitu moo jiitu wax moo jiitu jëf kon ñu ci gën a takkuwaat gën cee góorgóorlu bañ a yittewoo lu baree baree bari ci yi nga xam ne ndaw jamono yi ñu ngi ko yittewoo ci biiru àdduna ak ci taar-taaru àdduna ak ci leneen loo xam ne dañ daf ñuy fab bi ba duñu mën a tegu ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu xam-xam bi kon ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu fay ñëpp yiw kenn ku nekk jéego bi nga séqi bi agsi fii suñu borom subhanahu wa taala fay la ko ay yiw wa sallallahu wa sallam wa alihi wa sahbihi ajmain jërëjëf barakallah fiik loolu mooy kàddu yi nga xam ne Eh, yëkkati na ko muy kàddu yi cant ak kàddu yi yëg responsabilité eh, eh, dafa mel ne fi mu ne ñaan la soxla suñu borom mi nga xam ne moo yor lépp yàlla nañu ko sàmmal aaral na ko musal ko tam xamit ne ab coonaam mi ngi soog a tàmbali nag waaw fi ne nii moom sab coonaam ci fii lay tàmbalee ba boo nga jàpp ne li weesu mooy li dàq ci sa dund ndax dangaa yorlu nit ñi soxla waaw nit ñi nag bis boo yoree luñ soxla moom <laughs> noppi nga noppalu euh, te fi ne réew mi àdduna bépp sax lay wax waaye suñu réew mee ci raw dañoo soxla xam-xam xam-xamu bu diine ndax saa su ne dama koy wax de moom bëgg nañ ko lool lool lool lool lool xol boo ubbi moo fa nekk waaye nag réere nañ ko lool it nag waaw niñ ko bëggee bu fekkoon ne noonu lañ ko xame mu leer ci suñu bopp bi yaakaar naa ne kon Sénégal na gën la fii loola nag ku yàlla boole ci ñi ko war a leeral ñi ko war a jàngal nit ñi te ñëpp ko soxla nag waaw ñëpp ko soxla xam-xam bu diine bu leer ñëpp ko soxla man sax li may wax docteur Ilimane Ndiaye <laughs> wax naa ko li ma la jàngaloo ci ibtidaay war na maa ñëw kulliye nga fay ma ko kul <laughs> kulliye nga fay ma ko kon bu la yàlla nattoo nga dugg ci toolub daawa toolub jàng ak jàngale toolub jubbanti doomu aadama yi mais boo nga xam ne sab coono tàmbali kon dañ lay ñaanal rek yal na la ko yàlla woyofalal téeñal la ko yan bi sax du woyof ab yan moom day gën a diis rek waaye nag yal na yàlla defal kàttan ba nga àttan ko léegi ñu jox kàddu gi euh, sëriñ xaadim njaay rachid moom itam ku ko xam xam ne ci loolu nii rek la nekk muy jàng alxuraan ak jàngle ak leeral diine xam nañ ko ci conférence yi xam nañ ko ca daara ja xam nañ ko ci média yi muy ku yàlla dimbale it ba li mu xam dafa leer te wér te yàlla defal ko tawféex mu man koo leeral ba mu dugg ci boppam ku nekk kon ñëpp lañ bëggoon a jox kàddu gi kenn ku ci nekk wax la nga yëg te yaakaar naa ne buñ ko defoon ñëpp mën nañoo jël kàddu kenn ku nekk am nga loo wax ñëpp am lu ñu wax waaye nag xam ngeen ne loolu mënta nekk ndax buñ ko defoon boo tuut fi la ñuy fanaan kon dañuy tànn kenn koo xam ne dañuy jàpp ne bu waxee waxaaleen ñëpp euh, te yaakaar naa ne mënuñoo tànn ku ci gën a jekk sëriñ Xaadim Njaay rasid kon bismillah bismillah arrahman arrahim alhamdulilah rabbil alamin noo ngi sant sunu borom subhanahu wa ci xéewalam yu bari yi yu nekk rek mu ciy feeñal lu ab jaam jaare ngir yokk ak cantam dana xaw a diis du ma ne xaw a sax waaye day diis mbooloo moo xam ne kenn ku nekk am na lu nekk ci sam xel loo xam ne léeg-léeg xam-xama koy gunge du xelum kese toog ci jataay bi nga xam ne bu ñu la joxoon kàddu nga wax loo xam ne des na ci mën a jariñu ñu féerile ko kenn man jataay bi dama gis ne ay bind moo nekk ci ginnaaw ay bind yu bëree bari yoo xam ne mën naa am sax dana néew ku mën a peeg bind yooye ci jataay bii dañuy dem ba ca kanam xam nga boroom xam-xam li ci gën a bari bu amee jataay bu mu amal jubluwaay bam mu cay am léeg-léeg mën naa bañ a leer lool lool lool waaye nag ànd ak maa mururil ayyaam dañuy dem ba yàgg ñu ne ah ndekete lii moo taxoon suñ docteur loo doon amal jataay boobee doon ko amalal turandoom ba suñ Ahmad Lo euh, jàpp naa ne bëgg naa wax loo xam ne mënul turandoo wu nekk mu gis la di la ko wax mënul turandoo wu mu gis wu nekk naan la lii laa bëgg ci yow loolu mënu ko waaye nag lu mel nii moom mën na ko su ko defee turandoo yi nga xam ne ñi ngi ci ginnaaw Ahmad mii gis ne nii ñu defal Ahmad kat suñ turandoo lii dong la bëgg ci noonu amul leneen lu bëgg ci yéen mooy ngeen jàng diine ji ni ngeen ko war a jànge su ngeen ko jàngee ba noppi ngeen jottali ko sëñ Ahmad dañuy waxtaan bis mu ne ma sama bàyyi de mas na maa wax ne ma yàlla waxut xad aflaxa man taallama xad aflaxa man tazakka la wax ilmu wasila bu ñuy jaare la ngir tëskiya sa bopp ilmu wasila bu ñuy jaare la ngir tëskiya doomu aadama yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li ko taxoon a jug huwa alladi baata fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi mooy marxala bu ñetteel ba mooy way zakkihim te loolu ci xam-xam lañ koy mën a jaare sunu borom yàlla nag ci téeréem bi baat bi ci njëkk a indi yoonu xam-xam la yoon wu ñuy dimbale ci xam-xam mooy iqra baat boobu moo njëkk a ñëw ci alxuraanul karim mooy soobu ci yoonu xam-xam tey soo yoonu xam-xam mooy jàng daal ci sosalee aw turam woo xam ne sax du bismillahi bismi rabbika la te rab bu am munaasaba lool ak jàng ndax ju jëlee-jëlee ci xaala di la yóbbuwaat ci xaala moo tax sama bàyyi daan ma wax naan ma baat bi nga da kañ nga dal da ko xam waaye kañ nga fëri ji ko xam mi ngi mel ne kañ nga kañ nga tëdd da ko xam waaye kañ nga nelaw doo ko xam da nga jekki rek yëf yi ñëwandoo eh, sunu borom yàlla bu lay jàngal noonu la lay jàngale waaye nag yoonu gudd a gudd la woo xam ne sax du jeex ndax alxuraan moo nu jàngal ne xam-xam géej la goo xam ne laa saaxila lahu wa fawqa kulli di ilmin alim bokk na ci li gën a euh, dimbale ki nga xam ne boroom xam-xam la mu di ko wétli ko sunu borom yàlla ni nga xamee ne noonu lay waxe ci alxuraan inna allaha yaalamu alima allahu wa antum la taalamuuna annakum tadadkiruunahunna walakin la tuwaaciduhunna allaamul guyub tur yooyu dafa wane xam-xam solo xam-xam la ñu wan léeg-léeg sama borom yàlla sax ne wa tilka xududullah yubayinuha li qawmi yaalamuun léeg-léeg sax mu ne wa an tasuumu xayru lakum in kuntum taalamuun léeg-léeg sax mu ne fa in taabu wa aqaamu salata wa aatawu zakata fa ixwaanukum fi din wa nufassilu l ayaati li qawmi yaalamuun léeg-léeg sax mu ne huwa alladi jaala shamsa diyaa wal qamara nuura wa qaddarahu manazila li taalamu adada sinina wal xisaab ma xalaqa allahu dalika illa bilxaq nufassilu l ayaati li qawmi yaalamuun li qawmi yaalamuun léeg-léeg sax mu ne wa min ayaatihi xalqu samawati wal ardi wa ixtilaafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dalika al ayat booy jàngal xafsa naan lil aalimin lil aalimin kon day mel ne xam-xam fi ko yàlla saa borom teg jéggi na dayo Cheikh Ibrahima tudd na ko léegi damay faral di dellu ci ay waxam yarfa illahu alladina amanu minkum xoolal loolu ana faa'il ji ko mu doon kan mooy yëkkatee allah yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat Cheikh Ahmad am nga aw say su rëy rëy wu rëy waajur damaa bindoon ci moom a xasida ma dugg ci kër gi ñëw mu ne ma yow de bàyyi woon naa waay waaye danga ma wayloowaat daa ne ma maasaleel suuf si ma maasale mu ne ma bindal da ngay su bokk ci góor yu mat góor baloo góor góor nu bokk ca góor ña doon góor ma dugg ci kër gi ñëwaat mu ne ma ah, lu mujj leen daa nuru tàgg di ko bindal rek baloo góor góor nu mën ngaa dégg waaw góor kon loolu laa lay wax yow itam <laughs> baloo ngaa dégg waaw góor ah, ah, maa ngi tëje ji ndeysaan lu mu dénkoon doomu najaayam te mu am munaasaba lool da nekkoon yam yaa ibna xaaliya na ngeen di dànn te bañ a ngóoroo donn naa ab dànn donnu fetal ci danna def maa wóor ne soo danna dannawul du tee nga reeraw yenn fële di woon daggam du te jaggaani moom tool ya soo bayul du te yalwaani ndax ñaari siin ak ñetti xaaf ñooy duniyaa benn ca siin ya mbaa ca xaaf ya duuna suniyaa sonn bu wér sàmm bu wér naweef la mbaa lu ko mooy xaaf yee fi sas yabeef la di dox di xat-xatloo ci bunti jaambur tabbi ci biiri kër di xaar aw jaambur tax lu fa réer ñuy xeñ di laaj dafoo jaar bul mere kenn yaa deful ak njàmbar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa kon yéen ñi mu doon wax ci seen tur de mel na ne am ngeen satisfaction ah voilà alhamdulilah loolu eh, wax lépp nag importance su xam-xam rek ci la doon wax maanaam xam-xam mooy lépp waaw mooy lépp eh, su dee diine lislaam mëne su koo xam te amoo xam-xam bu dee àdduna it eh, xam-xam mën na ca lu bare ni ko waykat bi waxee rek al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jahlu yahdimu baytal issi wal karami xam-xam dana fekk nit ñu kenn xamut mu yëkkati leen bañ tiim ñépp eh, loolu misaal baa ngi nii xam naa bari na ci yéen wala ci àdduna bi ñu dégg turu ngaabu te yàlla ak Cheikh Ibrahima Khalil Lo am na ñoo xam ne bu dul woon moom mën nañoo dund ba faatu ba génn àdduna duñ dégg tur bi <laughs> loolu sarafun la naa euh, kon dañuy continuer rek jox kàddu gi euh, Mourtala Dieng ñang ndax dafa am benn xasida boo xam ne moom la def euh, ñu woo ko mu def arle bi ah ay nag la ay waykat rek a fi nekk <laughs> docteur Cheikh Ahmad nga xam ne boobu dama koy wax ba dégg arab jotagut la déggoon arab ko waaw ba muy dégg arab ba dégg arab jotagut <laughs> waaw ba muy dem Màkka bi euh, dem bi Saoudite Madina lettre ba mu doon bind nga xam ne demande woyu rafet yam ko def moo jaaxal ñooña ba fi saa si dañoo bind na nañ ko jël sans condition ko sans condition lañ bind ci kon nag bisimilah tafaddal bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baadu fasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu bu baax a baax sunu ñaari waajur suñu ñaari kilifa yi nga xam ne ñu ngi teew ci jotaay bi di cheikh Ibrahima Khalil Lo ak cheikh na docteur Mouhamed Ahmed Lo di nuyu mbooleem ñi nga xam ne suñuy kilifa lan di suñuy sëriñ te teew ci jotaay bi di jéggalu bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati benn at yi matiwu ko beneen bi itam xam-xam bi matiwu ko waaye nag sunu sëriñ di cheikh na docteur Ahmed Khalil li ñu jëlee ci moom ak li ñu jëriñoo ci moom ci wàllu bind ak ci wàllu teggin ak ci wàllu yar war naa tax bis bi ñu def loo xam ne dañ koy tuddee ak ndokkeel dañ koy tuddee ak goo xam ne ci xéewal gu mag gi nga xam ne boroom asamaan ak suuf moo ko ko xéewale Cheikh Ahmed tooguma fii di ko tagg waaye dañuy leeral loo xam ne rek. lu ñu xam la ndax ñi nga xam ne dañuy sàkku xam-xam te nekk ci jotaay bi xamante nañ bu baax a baax lim liggéey ci wàllu xam-xam gi nga xam ne def na ci taxasus moo di alxadis ci réseaux sociaux yi kenn xamu nu mu toll ñëpp xam nañ ko ñi ñuy tuddee arrawafid moo nga xam ne jamono ju nekk dañuy tàllal di di tasaare seeni pas-pas yooyu nga xam ne ku ko gëm tey da ngay am jéggin wu ñaaw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax laay njëkk wax laataa ay saxaabaam kenn xamunum tool kon ku mel noonu nag bu ko fe bu fekkee suñu borom da ko xéewale loo xam ne xéewal la ci waa Sénégal tey nga xam ne jamono ji muy ñëw la jaadu woon mooy président daal di koy teertu loolu mooy mooy lim yayoo kon nag ñi nga xam ne ay sàkkukati xam-xam lañ ñoom ñëpp yoreel nañ ko njëkkal di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu sàmm ko taar ko xasida gi nag maa ngi ko tuddee ilhaamul wujdaan fi tahniati al muhaddis al faydaan baxru bi nga xam ne moom laa ko tegg itam sunu sëriñ mooy xasida gi nga xam ne moom la wayoon ci ba muy door àgg ci jàngal islamiya te mooy albaxrul kaamil loolu itam ci laa ko tëgg kon loolu itam bind la ci nun ci man mii di wax ak képp koo xam ne rek dangay ngay sàkku xam-xam maa ngi wax ne hal anshada shuaraau min mutarannimi am abdaa alfusahaau min mutakallimi fi kanzi ilmin jaana min taybatin daari rasuli alayhi salli wa sallimi بشهادة هي للحديث مطية وسماؤها يرقى إليه بسلم وهو ابن والدنا الخليل فلا تسل فالشبل من ذاك الغضنفر فاعلمي يا أحمد الفياض للأثر الذي ينقي زبالة جاهل متوهم إني أهنئكم وقلبي هائج بنجاحكم وتفوق وتقدم من ذا يكافئ فارسا لا ينثني عن رد شبهات الروافض فافهمي بأدلة القرآن والسنن التي ينقي سخافة تنقي سخافة عقل غاو مجرم خط الرهان مناضلا ومتوجها نحو الثريا فوق خيل تعلمي وجعلت ميدان النجاح وسيلة لحصول رضوان الإله المنعم سهلت كل مصعب جا واقفا fi wajhi darbin jubtahu bi tajassumi fa samiyuka nixriiru xudda sabiilahu laa tajza'an an nakbatin wa ta'allumi allahu yukrimukum wa yucli shaanakum waltabqa sabbaaqan biduuni tanaddumi inni uxibuka fi lilahi mahabatan ascaa ubayinuha bigayri talacsumi kulla aljawaisi tastaxiqu sarahatan dum tayiban bitakarrumin wa tanacumi salla alilahu ala annabiyi muhammadin والآل والصحب الأسود القوم ما قمت فيكم بالقصيدة قائلا هل أنشد الشعراء من مترنمي السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير Ah. Eh, Cheikh Moutalla yaakaar naa <laughs> eh, xasida gi day wax rafet na lool lool lool lool lool lool maas waaw raaia gone gone yi jaaxal nañ ma de <laughs> gone yi di ko leen tuut Euh, vraiment xasida gi am na solo euh, neex na niñ ko tëggee macha allah euh, foog naa mu ne su ko wax ci wolof sox nag waaw li mu wax maanaam taar bi nga xam ne moo ci nekk yëpp ku ko bëggoon a wax ci wolof yaakaar naa ne da nga am jafe-jafe yu méttee méttee méttee méttee waaw waaw jafe-jafe yu métti kon dañ lay ndokkeel rek di la sant waaw di la wax ne wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ waaw di la ñaanal yow itam nag. waaw soxna la jërëjëf kon léegi dañuy jàll ci euh, kàddu ki nga xam ne moo woote jataay bi euh, di docteur Ahmad Lo bu waxee ba noppi la cay des rek mooy benn cadeau boo xam ne ki waral yëf yi euh, moom lañ koy jox docteur Ahmad Lo di nit koo xam ne suñu borom moo ñu ko xéewale ñun waa réew mi te damay jàpp ne eh, jariñoo giñ ko war a jariñoo sax des na lu baree baree baree ba yi damay déglu ndam lu rëy li nga xam ne am na ko ci jaami al islamiya nga xam ne ba mu sosoo ba ba ren eh, fukki nit ya fa gën a briller moo jël troisième loolu di ndam loo xam ne ku xam jaamiatul islamiya xam ña fa génn ñëpp da nga xam ne lii du lu tuuti du lu tuuti bu doon ci réew mu normal lañ nekk bu ñëwee réew mépp danañ yéeg na ñëw na waaye nag malheureusement nekkuñ ci réew moo xam ne <laughs> réew mu normal la beneen bi boo xoolee listub ñam ko bokkal fukk yépp kenn ku ci nekk lam doon ci réewam waaw kenn ku ci nekk lam doon ci réewam da ngay xam ne ñun malheureusement xam-xam joxaguñ ko àqam xam-xam joxaguñ ko àqam te eh, wàccuwaay boobu mu am foofu eh, mën nañ ne eh, xam naa li waroon naan xorom day xaw ma nañ koy waxee soxmaat waaw day yem ndox moomu dëkkal waaye dafa mel ne waa bitim réew waxuma naar yi kese de même dem na ba ay Europe ak yooyu Égypte jaameetal asad bu fa demee dañuy xam ni kilifa moo toog ci seen kan boroom xam-xam moo nekk ci seen kan fii nag yàlla ñun la ko jox ñun la ko sédde waaye nag malheureusement jariñoo gi ñu ko war a jariñoo dëgg dëgg dëgg dëgg maal asaf sadit yal na nu yàlla yërëm <laughs> kon dañuy jox kàddu gi docteur Ahmad euh, mu ñëw defuk soññe eh, yaakaar naa ne xam-xam ak jàng ak jàngale lim ci def eh, neexut a wax ci jotaay maanaam ba ko tàmbalee dafa yàgg. man mii li ñuy wax joxraaf moom ma jàngal. Ah, soo moom ma san dem néegam maanaam ni may jàngale kuréwiyatul ard ab sondeel la daan taal jël bal. <laughs> waaw ah, ah, bu masaan dem néegam ab sonde lay taal eh, ne la lii mooy jant bi jël bal bi ne la lii mooy suuf si di la wan maanaam kañ lay lëndama kañ lay soog <laughs> donc Pythagore si boobu te boobu demagul Arabie Saoudite waaw ah, te ba léegi li ko xamee mooy jàng ak jàngal waaw ci ay ndam yoo xam ne nag eh, ndam yu kawe la ndam yu kawe la su fekkoon ne xam nañ ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wa xadar naa ko xàq xadari Ah, kon yaakaar naa ne jot ci moom du yomb ko waaw kon eh, mu yombe du nu yombe kon docteur tafaddal maskura bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa ashaabihi mbokk yi ñu leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dëgg la Cheikh Ibrahim Khalil jottali na ak dalalam ci kàddu gim mu def dalal gan ñi la woon waaye ñàkkul ne ay gan ñëwaat nañ gannaaw bi lañ ciy dolli rek mooy fedd li dalal googu di dalal ñépp ak fu ñu mën a jóge ndax wax dëgg yàlla. li fi teew ci ay mbokk sooy ba ma ne fu ne lañ jóge ñii ngi jóge Gàmbi ñii jóge Ndar ñii jóge Kaolack ñii jóge dakaar ñii jóge feneen ak feneen ñooñu ñëpp seen jéego yiñ def yëg nañ ko ñu ngi leen ci sant bu wér di ko rafetlu di ñaan borom bi te tabaraka wa taala fay leen ci tuyaaba di nuyu nag sëñ Abdou Salaam mii di wax nii nuyoo bu spécial kàddu yooyu muy wax ci man di ko jotal lool ba mu yéeme bu war kenn ndax moom daa doon ci nun lépp seedeem matul ci nun seede day wax rek lu ko lu ne ci xelam ak xolam rek mu wax noonu lay waxe xol bee wax waaye du xel mee wax muy chef de village dëkk bii woyef lu ba ñëw ci jataay bii jiite ko di joxe kàddu yi di wax kàddu yu rafet yi loolu ñu ngi ko ciy sant lool waaye nag doom la kon loolu du jaaxal kenn itam ci daarul istiqaama damay faral di waxtaan ak mbokk yi ci lu bari daan ko faral di waxit saa bu am ndaje amee moo xam ne daarul istiqaama moo ko organisé jamono ya ma daan wax ci seeni kàddu ne daara ji li ko tax a jóg mooy jàng ak jàngale doon ci membre la dib sartam mooy na nga doon kuy jàngale wala nga doon kuy jàng walla ngay def yaar yëpp waaye ku jàngut jàngale woo bokkoo ci kon yëg-yëg boobee nga xam ne moom lañ doon yëg ci jamono yooyu ba léegi moom la di yëg ci biir liggéey bi nu nekk mu di ku jàngul jàngale woo amuloo soxla ci xam-xam bokkoo ci daara ji ci gàttal ndaje meet amunu lu jar daje lu jar daje di woote lu dul loo xam ne dafa jëm ci xam-xam wala liggéey bii nuy def loolu moo waral dajeb tey bii kon ci biir daje yi jëmmi xam-xam jàng ko ak jàngale ko ak jëfe ko ak tasaare woote bi lislaam bii nga xam ne ci la nekk gëm ko lool yi mooy li nga xam ne fa la ci la nit di yëkkati ko fi nun ci la nit di suufee itam ci nun ndax nun ci suñ bopp kat ci loolu la ñuy yëkkati ko ci la ñuy suufee itam yëg-yëg boobu lan yor ci kaw suuf bisub tey bii nag bisub mbégte la waaye bisub sant yàlla la bokk na ci li may sant yàlla mooy jataay bii ma teewee ko fekke ko cheikh Ibrahima Khalil fekke ko cheikh Alioune Badara Mbaye fekke ko ñetti ñooñu yi dañoo am solo lool ci jataay bii ndax dafa am projet boo xam ne dañoo bokkoon taxaw ko toog ko nun ñett ñettoo ko waxtaane ko bu yàgg loola fasu sun borom tabaraka wa taala yombal ko ca nam gën a yombe loolee di dox ba jëmmi jamono njaboot feeñ ca njaboot loolee ci feeñ ñu wëlbatiku duppee ma ko man mii di wax ak yéen sunu borom dogal jëmm jooje di dox ba àgg ci ñu war koo sarga ci bisub tey bii loolu nag ak cant gu rëy la goo xam ne war nañ koo sant suñu borom tabaraka wa taala woote wun ngir ne ah kaay leen xool suñu doom a ngi kan moo am doom ju nii déedéet waaye danoo woote ngir yëg ne xam-xam rek mooy xam-xam moo ko jar moo jar doxe moo jar waxe moo jar bi ca soññee moo jar saa boo amee occasion bu ko yëkkati nga gaaw balaa occasion boobee jàll suñ xaadim jaay rachid dafa mel ne daa jàng fànn gi ñuy wax qiraatul afkaar muy la ma yëg ba taxawoote bi ma def ko bi mu taxawee fii daanaka da ko wax ba mu jeex tàkk kon la cay des du doon luy bari ab soññee rekk la boo xam ne day jëm ci mboolem mbokk yi nga xam ne sóobu nañ buntub xam-xam ak ñi ko sóoboogul woon ñi ko suubu nañ ca wéy te xam ne xam-xamub lislaam mooy xam-xam bi lañ ci xam néewoo bari nañ ko jëfe nañ ko jaamoo yàlla bu dee fas pas-pas nañ ko fas bu dee jikko nañ ko jikkoo ndax loolu kat ci la defar doomu aadama nekk te doomu aadama yi suñ defaroo rek àdduna neex suñ defaruwul àdduna luñ sonn sonn ak luñ tabax tabax àdduna du neex kon faw ñépp bàyyi xel loola ku nekk loon di jàng jàppal ne jàng jamono jii kenn waru cee mën a mucc yow ma ne ca sab atelier di liggéey sax mën ngaa jàng sa téléphone bii den ak yow la nga toog di ko déglu muy ab xutba wala bind bu ñuy jàngale jàppal ne dangaa ne ci université di jàng kon kenn warta mën a mucc ci jàng ci suñ jamono tey jii nu nekk leneen la ca des nag ñu koy daaneele wala bala ñëw daaneel sax mooy kàddu yi jëm ci Muhammad Ahmed Ibrahim Khalil Cheikh Abdou Salaam mi ngi fàttali lu yàgg di wax ne ndax kon fii lan jëmoon ma di ko wax ne déedéet des na am na feneen fu jëmaat koo xam ne daa war a féete fii kaw li weesu lépp ndaw jóg na ñu jàngal ko alxuraan mokkal loo ko ko jàngal ko li jàpp ni ci xam-xam mu dem ci daara joo ne jàpp nañ ni ci daara yi gën ci jamono ci la bokk yi ñuy jàngale lislaam jàng fa bañ ne ko diplôme bi fi féete kaw kat mi ngi nii yóbbul mu dellusiwaat kon dañuy jàpp ne koo kii am na ngànnaay luñ ko jox mu war a jëfandikoo ngànnaay loolu nag ngir liggéey kon Mouhamed Ahmed bàyyi nga aw askan boo xam ne wu soxla xam-xam la wu soxla diine la wu soxla njub la wu soxla ay jikko la wu soxla yar ak teggin la xeet woow yi nga bàyyi gannaaw dem fàggu ji la nga fàggu sunu borom tabaraka wa ci lay ji nga xam ne ki doon ubbi jàng na ko falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddin wa li yundiruu qawmahum ida rajacuu jooji jël ko mu nekk loo xam ne doo tàggoog moom sooy nelaw sax dee ko gént nelaw sax dee gént borom bi daf ne na am ci yéen ñenn ñoo xam ne dañuy dem sàkku ji xam-xam ndax kat réew mi ñëpp mënuñoo ànd dem sàkku ji xam-xam ñenn ñooñu dem sàkku ji xam-xam buñ delsee nañ ko jottali ñañ fa bàyyi woon laay ji kat loolu la wax kon jël ko mu nekk loo xam ne da koy laxasaayoo njiit laayoo ko sol ko ci kaw wut ca mbaxana wut ca dàll takk ca lonet foo toll fu nekk mu ne ci sam xel kon bi nga delsee delsi nga ci am réew moo xam ne ni ko Abdou Salaam waxee ñu bëgg diine lañ ñu bëgg lislaam lañ ñu ci nangoo sonn lañ waaye nag woote bi nga nekk muy woote bi alquran ak sunna ñaar rekk ñoo lay déglu ku bëgg woote boobu ba mu jaral ko lu ne ak ku ko bañ ba mu jaral ko lu ne kon danga dégg aw tagg woo xam ne dana yëkkati ku ba weesu fa mu waroon a yem waaye danga dégg ŋàññi woo xam ne weesu na it fa mu waroon a yem su boobaa nag lañuy sàkk mooy équilibre bi ne ci diggante bi nga xam ne dangay dem ba ku lay tagg ak ku lay ŋàññi du loola moo lay tax a def li ngay def du mooy taxit ngay bàyyi li ngay bàyyi la ngay nekk danga nga nekk bu nit ñey wax ngay jëf yëg ne danga wàcc fii ci kaw suuf sàkku dara ci xam-xam ba am ko war koo jëfe war koo jottali li feeg yaa ngi def loolu ak lu nit mën a wax ci àdduna li feeg yaa ngi jottali xam-xam jàppal na yow li la taxoon a jóg yaa nga ca teyit man caa bañ am àll gàllankoor ndax yar bi ñu la yar yar ko say moroom muy ci biir daara ji mooy yar ak teggiin waxiin ak jëfiin kenn du la fekk ci loo xam ne dalay lay xeeb waaye kenn du dégge ci yow it kàddu yoo xam ne da koy xeeb xam-xam bi mën naa nekk ci dënn bi waaye kàddu yi koy jottali góor-góorlu ci ba mu mën a àgg fa mu jëm te luy lor doomu aadama du ci nekk foofu mu njàng mu yees la moo xam ne danga ko war a tàmbali hmm. da ko war a tàmbali dëgg la danga war a nekk soldaar boo xam ne alxuraan ak sunna moom ngay défendre soldaar boo xam ne dafa fas yéene liggéeyal am réewam am njariñ damay wax ne sàkku xam-xam dafa mel ni kuy yéeg ci garab goo xam ne daa am meññet ngay ñol loo di romb dégg ya fu nekk nga jaar fa ba àgg nag fi meññet bi nekk am na ñoo xam ne dañuy watt rek def ci seen poos daal di wàcc bu ñu yëbbee seen kër lekk lañu wat nit ñi naa moom li jàngoon ndax kenn jëriñatu ci wala mel am ñoo xam ne bu ñu àggee ca kaw la ñuy wat di ko sànni ñëpp danañ ca mën a jariñu bala ñoo def ci seen poos dañuy wat di sànni nit ña ba ñu jariñu ca xam-xam boobee melokaan woo wii fexeel ba mu nekk saw melokaan la ca des ma koy daaneele kon gannaaw bu ma la ñaanalee borom bi tabaraka wa taala defal la tawfiix ñaaral ko mbooleem njaboot gi muy doom yeeg sët yeeg mbokk daara yeeg ñëpp nga xam ne àndandooy liggéey bi lañ noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu boole ñu tawféex noonu ñëpp te sàmm nu sàmm liggéey bi li ci des mooy turandoo yi mbokk mi taxaw fii léegi lim leen ba ñu mat juróom benn fukk mu wóor ma ne am na ci ñoo xam ne mën nañoo teew fii sax walla ñu dégg kàddu yi gannaaw bi ne ah ma de sama doom dégguma ko ca lu mën a nekk la te dana nekk sax nag waaye ñu xam ne bu boobaa day soofental kenn waralu ko suñ sañoon tur yi yépp ay nekk ci kayit woowu yi docteur Elimane Ndiaye doon jàng léegi li ci nekk nag mooy menn mbir moo di man dañ maa yan loo xam ne dafa rëy ci man ba ëpp ndax seen njaboot yooyu yi nga xam ne dañ ma duppee seeni tur gisuma lenn loo xam ne moo ko waral lu dul ñoom seenug mbaax ak seenug bëgg lislaam ak seenug rafet njort ci jaamu bi yàlla bii ne xëy na ñoom li ñu bëgg ca la nekk képp boo seetloo li ci ne ci ay tur yoo xam ne ñu sant loo lañu weesuwut juróom benn juróom benn nag ci juróom benn fukk loolu defe naa ñuy calcul dañuy wax ne 10 pour cent la su fekkee 10 pour cent képp ñoom lañ ci nattable ndax ñi mbokk gee tax ñu tuddee ko ko wala ndax am na leneen waaye ñi ci des ñépp wóor na ne ak bokk wala deret taxul ñu tuddee ko kon lan moo tax leneen lu fa nekk lan la ndax daa jël xaalis di leen jox ne leen tudde leen ma doom wala dañoo dégg ne kii ku ko tudde doom am na lu mu lay jox déedéet lu ëpp ci ñoom yàlla xam na ne bu dajee bu ñu ma présenté wut seen bopp duma leen xam feeñ na ci mbokk mi jóge ndar léegi ci ñi jur turandoo ci la bokk bi mu dikkee moo ne ma mën a diw sàngam may bàyyi diw sàngam ma door a xam ne kooka la kon li nekk ci diggante bi mooy lan mooy lislaam ji nu bokk ak yaakaar ji nga xam ne moom lañ ci am kon noo ñaan sunu borom tabaraka wa moom mi nga xam ne moo nu suturaal ba yaakaar jooju nit ñi am ko yaakaar jooju bañ a tas adduna bañ a tas àllaaxira di ñaan sunu borom tabaraka wa taala jëmm yooyi ñu roy ci jëmm ji tax nu daje fii tey ci li jot a weesu mooy nañu sàkku xam-xam ba àgg fa xam-xam yem ñu door a wëlbati tàmbali nag liggéeyal lislaam fa liggéeyal lislaam tàmbalee ba fañ mën a yem ñoom ndax mëneesut a liggéeyal lislaam ba àgg fa lislaam yem waaye da ngay liggéeyal lislaam dafa nga yem yow waaye xam-xam bi nag mënees na ko sàkku bañ ne diplôme bi fi la yëf yee yem kon ñoom ñëpp nañ góor-góor li fekk ñu ngi gis bunt boo xam ne buñ ubbi la nga mën a continuer di jàng wéyal del jàng boog ba ngay àgg ci ñu ne ah fii kat moom mooy diplôme bu mujj bi su boobaa nag nga door a mottali sam jàng ca téere waaye nga del si nag fas yéene liggéeyal diine ji nag ba fa nga mën a yem su boobaa ña xam ne kii def na la ko waroon fii ci kaw suuf nu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq ñun ñëpp defal leen ko di leen gërëm bu baax a baax di am mbégte ci teewaay yi wax dëgg yàlla rëy na fi nun ñool euh, ñëpp bàyyi seen yitte dikk soxna yeeg ñëpp ñëw ba ci soxna si nga xam ne mooy soxna Ndey Njaay moom it teewaayam wax dëgg yàlla marqué nanu lool nekk délégué de quartier Almadi 2 nga xam ne da koo dégg rek ne faw ma ñëw ñëw indaale itam lim indaale ci ay teraanga loolu wax dëgg yàlla lu rëy rëy la xam naa ne doon na bëgg ku ko jox kàddu waaye rek nañ ko jéem a muñ moom ñoom ay ay ay ay kii lañ ay waxkat lañ boo leen joxee euh, parole danañ wax ba wax lu ëpp kon waxaale naa la soxna Ndey jazakumullahu xeyran wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. هل أنشد الشعراء من مترنم am abdaa alfusahaa min mutakallimi fi kanzi ilmin jaana min taybatin daari rasuli alayhi salli wa sallimi bi shahaadatin hiya lilxadiisi matiyatun wa samaa'uhaa yurqaa ilayhi bi sullami wa huwa ibnu waalidina alxaliili falaa tasal fa shiblu min daaka algadanfari fa'lami يا أحمد الفياض للأثر الذي ينقي زبالة جاهل متوهم إني أهنئكم وقلبي هائج بنجاحكم وتفوق وتقدم من ذا يكافئ فارسا لا ينثني عن رد شبهات الروافض فافهمي بأدلة القرآن والسنن التي ينقي صحافة tunqi saxaafata aqli gaawin mujrimi xutta rihaana munaadilan wa mutawajjihan naxwa thuraya fawqa xayli taallumi wajacalta maydaana annajaaxi wasilatan li xusuuli ridwaani ilaahi almuncimi